Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziare di la bëggee di la kontaane ah. bi naka la. man maa ngi tudd Jibi. Jibi Jibi tey ñuy def sondage ci élection député yi nga xamante ni gis nañu boobaak léegi askan bi ñu ngi si waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo di suñu ay njiitum réew tamit ñu ngi ci li nga xamante ni moo di euh, caravane yi naka nga ko gisee ak ban jàngat nga ci daal di am. waaw maanaam daal euh, maa ngi ñaan daal élection yi ñu jëm quoi yàlla yóbbuñ ci ci jàmm ñëpp fekk ko tal ko. mu nekk élection yu sedd yàlla def ci ndox bu sedd waaw ku nekk nag tamit xam nga élection mooy loo xam ne dafa loo xam ne jongante la quoi wuti la waaw ku nekk daal lu la yàlla may rek nga xam ne loolu la may quoi waaw. nan nga jàpp ne tey ñoo war a mën a ëppale ay nit fale ci assemblée euh, côté opposition bi wala sax côté nguur gi. xam nga parlement bi euh, population bi ñoo ko war a euh, ñoo ko war a tànnal seen bopp. on parle de, de député du peuple mais pas député du parti au Sénégal nag euh, on a l'habitude de dire euh, la partie euh, qui a le plus de députés euh, moo nekk parti boo nga xam ni mooy décidé alors que dañu parlementaire régime parlementaire ak régime présidentiel xam nga en en régime politique ñaari régime yooyu lan am mais Sénégal damay laaj d'abord ban régime lan am su fekkente ni régime présidentiel boobu président bi moom moo nekk mooy am majorité assemblée nationale Sénégal nag boobu régime lan fi bëgg a dawal ba président bu ñëw rek forcément da ngay xar sa tànk tubéy pour nga mën a am majorité parlementaire dans ce cas président bi mooy mooy décider lu mu wax mooy am pour pourquoi ñu wax parlementaire man dama jàpp ni parlementaire population yi ñoo ko moom waaw mhm. opposition nag opposition bi Sénégal ni ñu opposé dafa metti quoi Sénégal moom dañuy dañuy xëpp cere ji suuf quoi am na ñoo xam ne moom ñoom seen dara seen dara nekkul leen si lu du dugg pour yàq te dafa bëri am na ñoo xamante ni dañuy dem di di def ay politique ni mais pour yàq kese moo leen téye parce que mooy loolu quoi waaw. yàqkat yi dafa bëri Sénégal boo xool kenn buy liggéey fukk a ngi ci ginnaawam di jéem a suul li muy liggéey alors que loolu dafa war a jóge xam nga danoo war a yéenante jàmm xam ni réew mi bu jàllee ñëpp la jàllal quoi bu neexee ñëpp la neexal pas président bu ñëw kenn ku ne dagg sa làng génnee sa capital di ko financer pour maanaam pour yàq daal yàq boobu moo war a jeex ko waaw. non man personnellement man fii laa nekk musuma génn Sénégal xam naa Sénégal bu baax a baax. mais à chaque fois élection bu ñëw damay gis yeneen tët yu bees yoo xam musuma leen gis waaw ñoo xam ne man xaw ma fu nu jógee waaw ñëw bëgga bokk ci élection yi euh, uniquement pour yàq quoi waaw comme que maanaam résime bi fi ne woon ñëpp ñu ngi ko doon xeex régime bi nekk di passif xam nga man damay def sama droit citoyen damay voté voté fu ma fekk damay dem voté ji waaw xam ñi may àndal tamit aussi mais tamit pas gars yi ñëw fi di yàq quoi nan bàyyi yooyu quoi président bu ñëw ñu ànd ak moom liggéey ku nekk li nga ko mën a jàppale soutien bi nga am ak sa bi nga am nga exploité ko jéem ko jàppale ndax kii kii toog tamit di Ousmane ko moom wax dëgg yàlla personnellement dama lay wax rek li ma gis muy doxal moom doy nama ma quoi te xam naa bu ko jàppale woon dina baax mais yàqat ñoo bari quoi yàqat yi nan toog nan toog nan dem dallu quoi loolu laa bëgg wax quoi. non voter moom c'est un droit kii quoi waaw. waaw non am na droit mais xam nga vote kii quoi secret quoi vote c'est secret pourquoi ñuy wax vote bañ ñu ko ba dañ lay isolé isoloir isoloir ngay dugg yaa ma dégg yaa yàlla nga tànn ka la doy waaw boo génnee tamit euh, kenn du la xoolee bët bii nga voté wala bët bee nga voté loolu mooy vote vote dëgg dëgg dëgg mooy nga dugg def dem isoloir nekk fa yow yow ak yàlla kase ak papier yi nga tànn ki nga bëgg nga dugal boo génnee sa ndey wala sa baay kenn du xam ki nga voté mën nga bokk ak seen waa kër ñuy voté feneen yow. moo loolu kooku du ko xam non le loolu c'est à voir c'est à c'est voir parce que instant bii nii moom man du wax ci lu ma xamul bañ a ko ba politique moom mooy loolu quoi du ci sonn quoi jaralun ma sax génn sama kër waaw man politiciens ñoom ñëpp laa yemale muy sama mbokk muy keneen jaralun ma sax génn sama kër pour te dire vrai ok merci à vous pareillement merci